ayca jàppante ñaari xale yaa ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ndeysaan Guiro ak TNT Guiro ak TNT nekk combat espoir waaw dañ la woote waat na saan Rio Tente Rio Tente songu na ko songu na ko daa mel ni Tente daan na ko. Tente Cheikh Diaw a ngi doonu. Tente daan na ko nga lu muy wax Cheikh Diaw kot so. waaw Tente daan na ko. Cheikh Diaw mooy kot su Tente. waaw mooy kot su Tente kii la mos daan na ko daan na ko. daan na ko daan na ko. daan na ko. arbitre baa ngi wax ak ñoom quatrième soirée wala nga ne quatrième combat de la soirée diggante Bébé Saloum at Mbaye Feugeula Bébé Saloum moo ngeem moo ngeem bulu verte li arbitre sifflé la Bébé at Mbaye Feugeula Bébé Saloum moo ngeem moo ngeem am dar bu verte bi gàlloo morso bu xonq bi waaye ñoom ñaar ñëpp a gàlloo morso yu xonq waaye kii dafa takk takk ak ndaam ci bopp bi bu weex saan Modou Feugeula Feugeula Mbaye Feugeula ak Bébé Saloum Mbaye Feugeula ak Bébé Saloum ñaari gi du xeex Mbaye Feugeula dóor na Bébé Saloum replié Mbaye Feugeula Bébé Saloum saan Bébé Saloum dóor na Mbaye Feugeula replié Mbaye Pogello Bébé Saloum Sal ñaari xale yaa ngi ngi xeex ngi xeex Badou wa daan buub na ko eh Badji eh, daa mel ni arbitre arbitre arbitre daa mel ni waaw arbitre baa leen na ko naax Sal Bébé Saloum mu ngi ut ngemb waaye Mbaye Pogello mi ngi Mbaye Pogello encore dajale Mbaye Pogello encore dajale Bébé Saloum am na ngemb Mbaye Pakala jox ko taxawal mu jéggi ko da tuur wala Mbaye Mbaye ji mu dem Mbaye Pakala ak Bébé Saloum ndeysaan waaye Mbaye Pakala dama mel ni mi ngi koy dajale mi ngi koy mbot mi ba mbot mi ngi koy suuf saan Mbaye Pakala tegal na ko seen bi na daan na daan na daan na Mbaye Feugeula daan na ko Mbaye Feugeula daan na Bébé Saloum Mbaye Feugeula daan na Bébé Saloum oh da ngaa doon takk rek sukkur bi ko gëstoog moom mu teg fees daan na ko jëli bu daan na ko jëli bu rëy waaw bàyyi mu yëgati ko bàyyi mu yëgati ko baax na xale lañ ay sportif lañ dañ ndeyu saan abi sifle na mu ngi wax ak ñoom ni làmb nangoo ak làmb bañ ndeysaan Bécaye at Ama Bécaye at Ama saan Bécaye at Ama Bécaye jor Bécaye Ama laali na ko Bécaye daa jor Ama laali ko Bécaye daa tuur Ama def lali quoi Ama am na ngemb nee nañ ren comme daje waaye daa mel dañoo neexoo dañoo neexoo Ama daan na ko Ama daan na ko doole Ama daan na ko doole doole doole Ama daan na Bécaye doole ay waay Bécaye doole doole ba dina defati ban tamba déedéet daan na ko moy koy dem ko Bécaye wi daan nañu waaye Ama kenn du moom Bécaye numéro 2 la ñu daan waaw Ama daan na ko ndeysaan ndeysaan Ama ngi noonu ama ngi noonu. ndeysaan dem na Soobet. dem na Soobet dem supporter yi. Soobet dem na supporter gi. ooo oh. Mbaye Cuun la. xale baa noonu. ndax oh. soo xoolee noonu ndeysaan xale baa noonu. mu ngi mbokk nday koy jur mbokk nday koy jur mbokk nday koy jur ndeysaan dem na ci saam dem na ci saam ndeysaan bëgg dem na ci saam waaw waaw ci saam oh, rafet na rafet na rafet na wala noonu siyaar naa la maa ngi tey naka nga ñëwee. waaw comme ni mbër yi ñëwee rek. mais dama gis da nga ci làmb tey ngay ñëw ba xale. gëjuma ci làmb chaque jour maa ngi ci làmb. gëjuma ci làmb de maa ngi ñëw ci làmb toujours di entraîner toujours. tey lu mu laaj. damaa gëj a bëre rek loolu du dara. waaw loolooy gëj bi nga gëj ci làmb. non gëj ci làmb de gëj ci làmb mooy doo ñëw làmb xamoo ni làmb di doxee. xamoo ni fi làmb toll loolu mooy gëj ci làmb. mais kuy entraîner di ñëw di ànd ak gars yi ñuy ànd ñuy contact ngay ñëw fii loolu du gëj ci làmb tey naka nga ñëwee bëgg a jàmmaaloo ak ki nga xamante ne moo Youssou di ñaan yàlla suñu borom mu may ma rek di ñaan suñu borom mu may mandam rek. combat di ñaan yàlla mu may ma ndam rek loolu rek laay ñaan suñu borom. kon baax na ba jërëjëf. bu ziar na ziar nañ la félicitation. da nga bëggoon sax daanaka dafa mel ni amuloo loox ci la. waaw la mu bëggoon am ma ko parce que Saloum taxawul ñemewul. dama bëgg ñu jox ma Sarko ma ko humilier ko dóor ko ba mu daw lam ji. Sarko. man ko diisul ci man kanay diis man ëpp ma doole ëpp ñu ma poids di man te diis man egg naa fi ñëpp di egg maa ko ëpp victoire moo ma ëpp du dara bu ma ko jàppee duma ko doog koo daan. Sarko doo dërëm boo ma jëlee dama lay ma doog laa daan nga naa maa ngay. kookereeruy feemu di jéem a cutuwaate ay saw boo ma sutee saw ma duma la man bokkuma bu ma jéemee suti saw mbaam ma duma ko barke yonent du dërëm doo dara bay pokkeleeru bi waay jaw Kewel nuyu maa lay fay. mais gars yi namm nañ la na la gis ci maa ngi nii nekk ci war a nekk rek. waaw. amagoo combat ba léegi. am naa combat. sa diggante kan. Tidiane. Tidiane Faye. xaw ah. na waaw. Tidiane Faye kay bi mu jàppee Alioune Seye 2 da koo weer de. Alioune Seye 2 man. me am na junior. <laughs> ah mais du dara. man moom xooluma foofu moom. le professeur de lañ wax la le professeur de Lansar. le professeur de bu nu dajee maa doon professeur am. incha allahu rabbi. Tidiane mën naa bëre de. loolu laa bëgg sax xam nga ku mën a bëree neexat bëreel. liñ naan ku suur a neexee yebal waaye ku mën a bëree neex a bëreel waaw. sa digganteeg Tidiane lan la lan lan lan nga ci naan. non ñëw woon ko fulaak fayda rek def li mu war a def rek. waaw lépp laay àndi tey naka ngeen andee seen mag Mbaye Diouf. waaw mbay Diouf nag andi nañu ko. andi nañu ko comme ni ñu préparé préparé nañu ko normal. waaw def na li mu war a def lép di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek. mais muy bëgg xale boo xam te seen adversaire la nekk xale nekk ci yoon naka la war a moom tey. ah bérek moom béré mag rek parce que nag waa ji moo gën a diis il faut mu bérek moom ci expérience am parce que Mbaye Diouf ku ko xam-xam ne mbër mu mag la te am na expérience yi bëre kon am na qualité yoo xamante ne ni war na koo mën a nax booy bi tey pour juumloo ko daan ko ci. ñu ci bàyyi dañ ne est-ce doole ji. pour daan euh, Youssou Ndour moo ngi fi. non non am na doole am na doole incha allahu rabi bu ñu jàppante nga xam ne liggéey na. waaw baax na bonne chance ba ci kanam. ok merci. Boy Maar Libidor Libidor mën na léegi waaye demul Boy Maar Libidor Libidor cokkaasaat na léegi Boy Maar mën na Eh, xeex nañ léegi Boy Maar Libidor Boy Maar Libidor Boy dóor na léegi dóoraat ñu ngay xeex dóorante nañu ñu ngay xeex mu koy dóor nu koy def da daan da koy daan Libidor daan na Boy Maar Libidor daan na Boy waaw Modou ziar ziar dooloo ziar ñu gis tey nga ñëw wàcc lutte avec frappe te naka nga ñëwee waaw comme ni may ñëwee rek si lutte avec frappe sooguma bëre tey lutte avec frappe bii mooy sama neuvième combat ñaar bii mooy neuvième victoire incha rabbi waaw ko du mooy xam nga nit moom sax waaye booy dem xare da gëm ni da ngay gagné te yàlla mooy maye yàlla yàgg na maa may ndam yàlla na ma ko may si barke Seydina Mohamed tey ni leen xamee noonu nga da nga ñëw bëre lu simple wala tey da ngay xeex bëre. ndox du bàyyi yoonam man lu ma am bëre ak xeex moom ma ko gënal. waaw li nga wax. billaay wallaay. c'est que yaagal bi du yoon sax xoolal li ma indi supporter xoola xoola xoola fi li damaa bëgg arbitre bi gaa soufflé ma daan ko dem ñibbi. kon bi loolu da nga yàqam. barke Alxuraan damaa yàqam fi comme d'habitude ni ma ko doon defee si làmb simple yëpp ñëw rek bëre daan. kon ci kanam incha allahu rabbi. baaru rek. waaw man moom yàgg naa ci géew quoi min naa géew waaw yàgg naa di préparer ay combat fii stade bi moom min naa ko bu baax. yaakaar naa mbër oh, maa ko bu bawol carrière bu bawol. lu la dugal ci lu ma ko. lu la ci dugal. lu ma ci dugal. lu ma ci dugal mooy ñàkk combat rek. parce que man du ma du ma booy mais xam nga rek comme da ngay toog ay deux à trois ans doo bëre même combat bi ci une semaine laa ko jël. ci une semaine na parce que dama dama dama jàpp ne comme damay dem di bëre mbapat ah chaque weekend may dem di bëre mbapat war naa jël sax combat ci deux jours moom moom parce que mbërëm mbapat. booy bi day xeex lay bëre. waaw man lépp laay def man yow xam naa boo ma xamul tamit boo ma laaj. xam naa la bu baax ak nga saf. aha léegi nag man pare naa pour lépp. Ah. waaw lu mu combat dina am xeex. non lu mu soxla rek mu ngi fi. Ah. waaw lu mu soxla. kon baax na ba je suis prêt tout yee ziar. waaye bëgg naa la Ousseyn. ci loone waaye sant yàlla. mais lan moo waral changement adversaire. mais changement boo gisee ñun corona ba léegi ñu ngi entraîné. boo nu xoolee xam nañu entraîné nañ. li ñu leen a ci dese saa yi wala saa bopp. parce que dafa jot il est temps ma kii mooy boobu sax moom moroomam maintenant tey laa koy wan ne duma moroomam incha allah li ma xiifoon corona yëpp ah ndooloon ko tëji woon ko. mais ñu gisee sa combat bi yow ak góor gi étudiant la woon ñu jékki-jékki gis ki nga xamante ni mooy hôtel Dior lan ma woo changement ah, dem na ba ci biir mu ne dafa blessé loo si dara. même pas neuf jours la blessé une semaine. la blessé ñu woo ko xaaroo ko ba tane. non man du ma fi ne di xaar kenn ñaata combat laa yoo a blessé. gars yi kenn mënut a comprendre tamit. parce que Sëñ Fallou moo tax ñu wax ma une semaine man leen na ñëw ku ñëw baax. mais sa diggante Hôtel Dior Hôtel Dior ku ko xam ne xam ne xeexkat la sa diggante moom. waa instant yi moom bu xeexee woo naar ci guuxum soow bu bëree ma jàngal ko bëree leer laa lay wax teel ma lii barke Cheikh Rafal. kon tey daal na gars yi taxaw waaj xaar nga dugg jëflante. caméra yi di xool. Ah. di nga gis lu garaaw. kon ci kanam barke Cheikh nuyu naa la Ndiaye. fee naa la Seynou. loo ne. waaye sant yàlla. amagoo combat eh, na jox combat kay daw kay. man daw ma da gën a xaalis bàyyi li ngay def. <laughs> gis naa keroog Albouri. nee na sa digganteeg moom ko daax. te Albouri moom fi mu toll nii. na jëflanteel doole ji bëri na. wax ji bëri na xaalis bi bëri na te dee dóore. waaw Ndiaye moom ko di neex Ndiaye moom euh, ku mu signé contrat moom di neex noonu la demee rek. booy bee lam la lépp lépp ay lam la rek. mais ba ngaa jël avance. ku ñu lam boole pare nañu bu mbir. non waxuma lool ba xam ñebe ngaa jël avance albume laa lu muy ragal. Ah, xamuma. Ndiaye amul lan lu muy xalaat. ragaloo albume. lan. man amul lu may ragal la. comme que comme kii nga waxal de comme que kii nga ba ba ba caat yaa jot naa yaa. caat ragal la waaye caat ragal la bu ma waxee caat gars yi ragal lañu. Ah. li ñuy wax bu ñu bu micro yi taxawee li ñu def ci suuf la ñu war a bàyyi waaw ñun ñoo bokk lamb ji ñooy mayante xaalis. dañu wàññi kase bi sëgg bëri. waaw mooy yoon lamb dafa métti di entraîné te bërëwoo dafa métti. yow su ma la jëloon dama lay duma daan la. doo dërëm. ngay bëri wax ni lan la. soob maan nga <laughs> kii di la woo nga bis boo ma jëlee di nga xam ni maa la gën a wopp téeméer bu la leeree muy sa jàmm di la combat du aja yow seeti nga ko du yow seeti nga ko seeti naa la saraxu bawol bawol mais yow Magasin Gaye seen prestation. man ngay waxal. Lass Lass ana wala Lass Lass ana am na ci yooyu Fils de Tyson Boy Diouf Fils de Tyson Boy Diouf jël na tànk Fils de Tyson jël na ko da koy jël da koy fàq na ko waaw <laughs> Boy Diouf fàq na ko eh, vite fait la xale ba daan na ko jël mu wéy nee xel déglul Boy Diouf nee na xel laa daane Boy Diouf nee na xel laa daane oh daana ko jël bu rëy délégation bi Ba moom it mu ngi ci délégation bi Major Mbaye Bour Gueweul ñëw El Hadji Malick Ndiaye mu ngi ci Gabriel mu ngi ci délégation bi na ci délégation bi ak Didier Chano moom it ñëw na délégation arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi Toubacouta Malem Niani Toubacouta à droite Malem Niani à gauche Malem Niani Toubacouta huitième combat de la soirée Toubacouta door nañu ko eh ko Toubacouta eh, Toubacouta jël na ku te Malem Niani dina doomu daanu Malem Niani dina doog Toubacouta jàppante nanu <laughs> Malem Niani mi affaire la de ma ngay rasu Malem ñaani Toubacouta Malem Niani Toubacouta jël na tànk ba Malem ñaani Toubacouta Toubacouta lu mu def nii Toubacouta Malem Niani ñoo xeex dina ko dóor dina ko dóor dóoraat na ko Malem Niani Toubacouta Malem Niani Toubacouta Malam Ñaani jël na ko lu mu koy def Malam Ñaani Toubacouta ak Malam Ñaani xeex nañu léegi xeex bu neex bëre nañu ñoom ñaar Toubacouta Malam Ñaani Toubacouta Malem Niani Toubacouta dóor yi muy dóor baax na braqué na ko moo koy braqué da koo bëgg a jeexal Toubacouta Toubacouta ndànk Toubacouta ndànk Toubacouta Malem Niani ñoo ngay bëre waaw waaw takk na ko Malem Niani takk na Toubacouta da koy daan Toubacouta daan na Malem Niani Toubacouta daan na Malem Niani waaw waaw xoolal ma supporter ya supporter yaa noonu. xoolal Gris 2 Gris na ak moom Kaanu Demba guy maa leen di ziar. sant naa yàlla bi dafa am lu ma jaral. lii foo rek lii ay combat préliminaire la rek. lii du dara. non mais espoir la foo moom mënul ñàkk foofu dañ doon def ay carton ba ñu ñuy dóor. mais mobilisation bi lan la li nga andi dafa bëri. parce que grand laa bëri. man mbëru mbëru mbëru sama mag a ngi nii Gris 2 lépp lu mu def si làmb dinaa ko topp. lan nga bëre lan nga bëre. ñëw bëre wan ni foo la. sport la dañuy ñëw bëre jaayante doole du xeex bu jëree xeex ñu xeexeex bu jëree bëre ñu bëre loolu kese la. ni nga ko daane ñëwal ci ni ko daane. non dama ko bàyyi mu takk ma kot ko tëdd ak moom dama ko bu doole xale laa. waaw léegi léegi nag fan nga jëm. ah léegi fan ñu jox ma. fils Balla ban. xool nga li wax bu baax. mais bii mooy moo ko ko dee lan moo tax nga dee ko Fils de Balla. yaa ñoom ñëpp xanaa gars nu gars nu Fils de Balla kat mu jël ci ay drapeau ak fi muy di wax ak ñoom bërewu bërewu ma kon ñooy ay adversaire am dañ ko xamul moo tax mais li kanam raw li bët. arbitre baa ngi wax ak ay sixième combat bi dox ci diggante Carrière bu Bawal ak ki nga xamante ni mooy Hôtel Dior arbitre bi sifflé na Hôtel Dior Hôtel Dior Carrière Carrière a carrière carrière ngi dox ci kawam dina ko dóor mu daanu carrière koy dóor carrière baa du ko dóor mu daanu Hôtel Dior daw na Hôtel Dior carrière Hôtel Dior carrière jàpp na Hôtel Dior jàpp na da daan lu muy def nii carrière Hôtel Dior Carrière Hôtel Dior zongale na ko da ko bëgg dafa diis Carrière Hôtel Dior Carrière defal ndànk Hôtel Dior ndaanaan la ci làmb lu ne def na ko ci làmb kalaat na ko ba doo daanu Hôtel Carrière Carrière Hôtel Dior Carrière Hôtel Dior Hôtel Dior ngay dóor Hôtel Dior est-ce que génne sa la lu mu ko def lu mu ko bëgg a def génnaat nañu Carrière dafa bëgg a jeexal ji waaye laamu du noonu lamb du noonu carrière carrière hôtel Dior carrière hôtel Dior Célibataire Dior Carrière dafa yaakaar ne ñoo saax saax oto ñoo jàll waaye oto Dior dafa bañ loolu jongale waat na ko mu bañ jonga da koy daan Carrière daan na oto Dior Carrière daan na oto Dior Carrière daan na ko waaw waaw doole yamul mbokk yi ñaari mbër noonu ci diggi géew bi ñaari mbër noonu ci diggi géew bi Youssou Ndour à gauche Mbaye Diouf à droite arbitre baa ngi wax ak ak li làmb bañ nee na bu ngeen déggee sifflet ngeen bàyyi Mbaye Diouf Youssou Ndour Mbaye Diouf pied droite Youssou Ndour pied gauche grand combat baa ngi noonu journée Baol Production dimanche 22 mai il est 19h34 arbitre bi sifflé na Youssou Ndour Mbaye Diouf Bawal Youssou Ndour école de lutte Balla Gaye ñoo ngay demee wet Youssou Ndour à gauche Mbaye Diouf à droite Youssou Ndour teg na pied gauche Mbaye Diouf teg pied droit Youssou Ndour sëgg na tibb ci suuf si. Eh, Mbaye Diouf a ngi déplacé wu Youssou moo ngi dox ci kaw ki nga xamante ni mooy Mbaye Diouf journée Assane Ndiaye Baol production drapeau Bassirou Ka door na ci kawam dox na ci kawam doo ko ku Youssou Ndour Mbaye Diouf Mbaye a ngi reculé. Youssou Ndour tokkaas na ko door na ko <laughs> Mbaye Diouf door na ko Youssou Ndour remis ko Youssou Ndour Mbaye Diouf Youssou Ndour dafa mel da ko bëgg a jàpp na ko mu génn Youssou Ndour Mbaye Diouf Mbaye Diouf am na benn avertissement arbitre sifflé waat na jege yaantoo nañu Youssou Ndour da ko bëgg a jàpp jàpp na ci ngemb la Youssou Ndour jàpp na ci ngemb la lu mu ko bëgg am na benn loxo ci ngemb da ko bëgg a fàq wala loxo da koy daan vite fait bien fait taxabal loxo mu daanu Youssou Ndour doole yemul Youssou Ndour daan na ko doole yemul doole yemul. waaw